Cheikh Ibrahim ku xam yàlla ma ne xam yàlla nag li ko nit ñi foog du loolu de lu la neex nga wax nu la neex nga waxee ko soo paree wutal ko lay déedéet Seydi Ali kenn gënu koon a xam yàlla Seydi Aboubacar al Muthanna kenn gënu koon a xam yàlla ak ñeneen ñu dul ñoom muqaddam yi nga xam ne wala ñi nga xam ne dañ leen di dëkk mikoro tey tey jii rek am na ku ma dégg mu ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass wala mu ne daf ne mu ne muy wax masala ba ci yàgg mu ne foofu yàlla sax dañ ko faa jox ndigal maanaam diwoo ko jox ndigal ba ci yàgg mu ne foofu laa ci yem ndax am na noo koy waxee sax ñenn ñu duñ dégg te su boobaa danga leen di yàqal nangam nangam nangam nangam bayti bàyyi yi jël diko soppi nan bàyyi diw lay wax wala ni la ko waxee oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mune ne lum bëgg bind bàyyi lum bind ci arab rek mune lool la bëgg bind bu fi ñëw nak nuko ko Seydi Ali firewul nuko Cheikh mawlaji firewul nuko Cheikh al imam Cheikh tidiali ci firewul Seydi Cheikh mahmoud al Mahi firewul nga jël ko diko firé nim la nexé mané Bayi ñas ku dul julli mëno and ak mom maulana Cheikh l'islam ku dul woor mënoo ak mom wax na ne ci ñaan ga ba mi yeewal daf ne daxra xaafirina lim ci nam rek moy ragal yalla dana top bay tu duma julli bay nee na gaay yi seen càkkutee fi sax ñu ko amé ci julle ki nangam waaye baye daqonu julli ñep mo mo daqona wor ñep kon ngir yàlla ku mënta fireeti bayti bàyyi ni ko bàyyi bindee bàyyi ko fa ba ñi ñëw mën koo firi ñi dégg ko nañ bàyyi taalibe yi ñi nax nañ bàyyi kóllëre yi ñi fecc nañ bàyyi mbir mi ñi tengal nañ bàyyi yokku bi nañ bàyyi dolli lu ci bokkut nañ bàyyi wax luñ xamut nañ bàyyi jël engagement yu ñu mënut Seydi Cheikh Hassan al Kutub bi paasan téere wax na ne bi kereeg bi muy sos wala bi ñuy ñaan alajab laay ndigal ci jaxate alajab laay daf ko waxoon ñaari ñetti baat na ko ci charte su fekkee mu ne ko benn bul daf loo xamut bul ci bool lu ci bokkul bul bul dugg ci loo mënul fekk jotaay bi ñetti yooyu yaa ngi koy bàyyi xel mun a may naa la ci ndigal waxtu woo waxee loo xamul nag wala dugg ci loo xamul wala boole lu ci bokkul mu ne mbóot ma toxu na dëgg-dëgg su fekkee ne ba léegi bàyyi ñim yaroon ñu ngi fi bind yum bindoon ñu ngi fi fotoom yaa ngi fi dëgg-dëgg bàyyi kenn waru koo mën a layal nañ ko bàyyi ni nekkee ku ko mënta firi nga bàyyi ko noonu ñi may wax xam nañ seen bopp ku mënta firi bayti bàyyi nga bàyyi ko noonu ba ñii ko mën a firi firi ko te nga bàyyi naan bàyyee wax lii bàyyi lii la ci namoon soo waxee gars yi dégguñ na nga naan yéen déggu déggu leen fi ñuy waxee loolu yëpp tappale la nañ teg bayti bàyyi fi ko bàyyi teg nañ bàyyi ñi mën ñi mën a firi alxuraan te am yar teg giin bàyyi nee na boo dajalee mboolem xam-xam di firi alquran des na benn mooy aji firi ji na am leer ci xolam maanaam ragal yàlla سلول سيد آه، الامام محمد آه، الامام آه، شافعي واخنا ني دا فا ام بروبليم موكال مو تاور كو سيرينم ولا كوم كوم لا تاور مونوكو بايل موي يالا كوي جانغ نا نيو لا بايل موي يالا ندخ العلم نور خم خم لير لا تو دنجكو جوخ كوي موي وا سو فكين اجي جوبال جي مقدم بي ولا ديو مورو توب كو مونغي جوبالي كوك اسكو دا مان نافر كين باي بام دامي بكاران سيس لي نيان يالا يو يالا سما جوب جي nga xam ya mako yanki wala ci maamalaaji la ko amee ci cheikh ci yonent bi sallallahu alayhi wa la ko amee ci alquran la ko amee mun ne ñaan na njub googu mu daj mboolem àddina bi dëgg-dëgg ñu yokk ci mbir yi bàyyi buñ ci wàññi loolu laa waxoon danaa ko ci jàllale rek yéen a ngi ci yoon bi lu ngeen gën a mën a leeral leeral leen ko su ngeen ko dafut te sëriñ bi sëriñ Daaru Samar ña wax na ne ñu ngi ko yaakaaree ci yéen ngeen mottali ko fu ngeen dajeeg nit bu leen xool ci moom dara wax leen li war a nekk ni warta nek ñi bayiko liñ tagge woon xeetu yonent bi moy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah suñ demee ba tay nak nit ñi di bouleverser affaire yi di digle lu bon di téré lu baax ba paré di tek ko ci haqiqa haqiqa bi nga juddo nga xamna ne yaramu neen nga daf bo génné ci mbéd mi ñu nak yu dof la so bëggé dundu haqiqa mu lèr da ngay sol sa yéré nga sol dara wala nga sol xaftaan nga sol mbaxal nit ñi mëna wax ak yow so génné légui sa jabar bi nga nek mo la njëkk wax da nga dof bàyyi nit ñi na nit ñi bàyyi li ñu ay xaqiqa li gi nangam nangam loolu amul njariñ bàyyi lim indi mooy lu leer la indi nañ bàyyi ñi ñu ànd ak ñoo xam ne dañ leen di nax di leen tromper te bàyyi lim indi lu wér la moo Mawlana Cheikh Tidiane mu ne suñ ko sosalee mu ne peese ko am mandakam sharia mooy ne nga dem nga dem jàngi ndax am na ku ma wax na ma mu ne sama diw sama sëriñ moom wax na ma su may defati lazim ma daf faatee salaatu faatee ba pare addiyaal ko soog a dugg ndax moo nekk sama diggante xam nga yow yow loolu loolu yëf yëfi caaxaan la sëriñ bi wasifa laazim loolu dafa leer mbir mi ñu ngi ko bind mu leer naññi nañ bàyyi li ñuy yokk bàyyi du moromu kenn bàyyi du fo du folo bàyyi ma ne mu ne fo na nga dem fële moom yonent bi sallallahu moom lay topp nañ bàyyi li ñuy yokk lii may wax na ku ko mën a dégg yow laay wax maanaam ku ko mën a dégg te nekk ci yow laay waxal ak koo mën a doon bàyyi li mu indi dafa leer yar ak teggiin jàng xam-xam liggéey jaamu yàlla waaye bu ñu waxee nga ne nii lañ koy defee nii maanaam ndax ci ci xel ci xel nit ñi déedéet damal nga uti waaye nañ bàyyi di ci boole lu ci bokkul te mooy waxloo bàyyi lu mu bàyyi képp ku fenal yàlla xam na ne balaa ngay dee yàlla yàlla dumu la fii nga koy gisee السلام عليكم ورحمه الله